صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه bokki jullit yi bokki ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen nuyu nuyu islaam muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di ndokkeel ndéem si media nga xam ne fa tabaarakallahu seen soxla mooy lépp loo xam ne rek nit ñaa ko bëgg a jot ñu dimbale leen ba nit ñu jot loolu loolu rek mooy li nga xam ne mooy seen mooy seen rôle <coughs> ñu ñëwaati tey di waxtaan ak yéen ci ci lañuy ñu tudde al udhiyatu tabaski tabaski mashruiyatuha pourquoi ñu sunnaal ko def ko charan asluha tabaski fan la bàyyi ko على من تجب عليه الأضحية أنا كان مورا تبسكي مشروعية الأضحية تبسكي نيكو سنة عليه لورا اللولو ولا بو قصة أصلي الأضحية ما نام تبسكي أي تسانم وي بين غورغو باخ بين يونت بن نان إبراهيم عليه الصلاة والسلام مملي يالله wax ne ko teg naa la nattu nga d'accord ko ma fayee tabaski fa kaana sunnatan mu mujj nekk di benn sunna ci suñ kaw yunti yàlla ibrahima mu nga dëkk dëkk bu ñuy tuddee Kuusa ca Suuriya judd ci benn famille boo xam ne famille bu riche la muy famille boo xam ne famille alxaakima la famille boo xam ne fami famille buur la ñu famille bu ñu respecté fekk ay nit ñoo xam ne ñoo ko wër war koo yar ñooñu leen la xamoon ci àdduna mooy defar benn tamas benn tamsil waa defar ay tamasil yu bari di ko jaay yaa dogal na ñetti façon ngi nit ñoo fa nekkoon jamono boobu am ñoo xam ne dañoo jaamu al muluk am ñoo xam dañoo jaamu al asnaam wala al awsaan am na ñoo xam ne dañuy jaamu an nujum wal kawakib Ibrahima bi mu ñëwee génn ci ñaar ñëpp ne moom du jaamu an mu wala bokk an nujumu wal kawaakib du jaamu biddiw du jaamu weer du jaamu al muluk parce que nit ci boppam nees la koy jaamoo bu dee nga jaamu keneen du jaamu it li ñu tuddee al al al awsaan maanaam li ñu tuddee xërëm du ko jaamu problème am ci diggante moom ak ñi mu dëkk parce que loolu nit ñi liñ xam mooy boo leen indilee lu bees duñ ko attan. ci la am ak ñom problème gëna bo xamne ne may nañ ko soxna soxna bu ñuy tuddee saara mo mu ne fay gàddaay bàyyeekoo ci dëkk bi mu dëkk parce que mënatu fay ne parce que dëkk bi li ñu ne ak li mo ne de ben mas ñom problème mo wa dëkk bi ben bés parce que dafa ba ñu dem fête mu dem fekk fi gaay dajale sen bagage yu bari yoy yi ñoo jaamu mu dal di ca toj yenn yi jël yenn yi denc leen gaa yi ñëw ana suñu yàlla yi ñu daan jàmm mu ne leen yàlla yi ngeen daan jàmm de il naa ñu ngi fi de demen ngeen laaj ba xam ndax bu fekkee am na bu ci manqué yàlla yi ci des dinañ leen waxal ne leen bii moo manqué wala bële hmm? pour rek jëm leen indil problème waaye gaa ñi mënuñu xëqi ci seen xëm bi mu daal di gàddaay nag bàyyi ko dëkk bu ñuy tuddee Kuusaa ne defaa dem gàddaay pour génn réew mi parce que nag dañoo wax ne ci diine daga na nit bu ñu la xatalee foo mënta nekk nga daal di dem feneen parce que fa ardullahi wasia <sighs> bi muy dem ci yoon bi nag am kiimaan bu feeñ bu yéeme ndax fi mu war a jaar géej la te géej gi dafa am paas maanaam pour nga dagg tikk tikki bi xam nga lan la mooy bagage yi nga yoree dañ koy xaaj ñeenti xaaj benn xaaj bi moom ngay jël jox waa ji mooy nekk tikki bi biñ jaaree ci géej gi ah commencé di xaaj bagage yi bagage bu ne gars ñoo dagg ci bagage bi gi digg rek jël benn xaaj dagg ko ci ci ci ko ci bi ci koñ bi rek jël benn xaaj bi yóbbu bay fa ñetti xaaj bam gisé ni ay bandi lañ mu jël soxnam duggal ko ci ben caisse pour war ko jallalé gaay na ne forcément ñu dag caisse gi jël ben xaaj mo yaran caisse gi su ñu ko dagé def musiba dé bi xëccoo bi tangé ñu ubbi caisse gi fekk ci ben jigen ju rafet ñu nan ko Hajara ñu nan ko sara gaay yi wax ba fi nekkon ñu nan ko Saduuf ñu ko amna ben ay bu fi jaar yor soxna yor andak soxna so xamné kenn ma su ko gis ci taar ak ci leer dal daal di dugg ak mom ci ben xayma saa bu yëkëté loxoom ne mu ngi koy tek xalé bu jigen bi loxo bi xam échec paralysé bu waté loxo bi am dara du xew mu xam ne ndaw si du ndaw simple Ibrahima lo bok ak ndaw si mu ne ko sama rakala mu ko wax ma dëgg ki wax ma lan ngeen bok mu ko sama soxna mu ko am lu ko yalla may parce que ndaw su fi mësa jaar su soxla ci mom dara am ko mom dafa mel da am lu koy aar bu dal passé mu dal ko may ben jam ne ko yow ndaw si comme yow gis naa ne exception nga ba jigéen ñi ma xam may naa la benn jam bu ñuy tuddee xaajara nga yóbbaale ko mu di la toggal di la fóotal mu jot jam boobu di xaajara ànd ak moom moo Ibrahima ak Saara te muy ñoom ñett ñu ànd ci tukki dem ba mu yàgg Saara daal dina Ibrahima daal damaa bëgg jam bi ma may la ko nga takk ko mu nekk ñaareel bi mu ko takkee moom jaam boobu mu nekk ñaareelam ci la mujj nag am ci benn doom bu ñuy tuddee Ismaayila bi doom di juddoo ñoom ñaar mënatuñoo nekk boobu ñu nga Quds baytul maqdis fi Israël toll waaye mënatuñoo nekk parce que jigéen nit ni ko yàlla bindee mooy moom dafa am yu mu bëgg jigéen jëkkëram na nga ko ko baal mu ëppale la ci 100 pour cent su demee ba di la ci xajal it xajal ba ak lu mu baax baax ak lu xajal bi foor for for bu mu la ci xajalee yow na nga wane ne dañ la caa xajal bu ci jël lu ëpp lam la xajal waaye mu xajal ko ba pare waa ñëw jël lu ëpp ci moom jël lu ëpp li mooy ñëw na am ca doom te kii mënta am doom fitna juddu mës naa sonal ndaw si benn coono boo xam ne coono bi ndeke barke lay jur ndax mas na woo ndaw si ba mu ñëw mu daal di di jël doq gi foofu mu daal di fi def ay gaañ-gaañ Ibrahima dem jénd ca marché ba caq bu caq bu cher bu rafet takk ko ci la jigéen ñi ko waaj a takk caq mu daal di ko gaañ ci ci ci loxo li gaañ gaañ boo xam ne mën a mënatut dem ak moom Ibrahima takkal ko ci benn morse moo indi lam mu daal di xëttu nopp yi Ibrahima daal di ko ca takkal benn jaaro moo indi jaaro nopp moom moom ba taaru jigéen jeex yëpp fa la bàyyi ko te yëpp ay fitna la woon moo ko taxoon ci moo tax yàlla su bëgg indi tawfiq da koy jaarale ci loo xam ne yàq lay tudd. Ibrahima nag ci la wax ndaw si ne ko man ak yow ak sa xale bi nga jur nii mënuñoo dëkk soxna si nga xam ne moo fi jiitu parce que soxna si tax mënta muñ loolu mooy dafa wax naa la dafa bokk ci famille famille buur buur mën naa muñ lu ne waaye lépp lu muy muñ nag day jàpp ne la muy muñ moo ko gën waaye kere bu jàppee ne am na ku toll ni moom buur ba mën a tudd muñ ci ci ci nga xam ne moo leen yëglif Ibrahima ci réeram di dëkki Makka ànd ak doomam Ismaila ñu ngi ko ëmb ànd ak jabaram Hajara mu ñaareelam bi dëkkee Makka nag am fa ay shaair yu fa yàlla def ci seen dëkk boobu barke gu barke ndax ci leen tabax gi ñoom ñaar fekk boo kaaba gi tabaxoon nañ ko waaye am na benn yolnde bu fi ñëw boo xam ne moom la ñuy tuddee tuufaanu nuux suñu borom ne ma ndox mii nga xam ne moom laa bëllal bàyyeekoo ci kaw ak ci suuf li tax ma indi ko mooy damaa mere aw nit woo xam ne damaa yónni woon noox nekkoon ko dem woo leen gaañ bañ ne duñu woy ju noox di ko reetaan nan ko yow benn munisi rek nga defarkatu gaal rek nga doo dara suñu borom na ndox mu mu mer génnee ko ci la ne malaaka yi ndox mi comme sobee la parce que ndoxu mer la ndox moom bu laal kaaba gi ci lañ ko buddi kaaba gi loolu moo ko fi jëlee bi Ibrahima ñëwee tabaxaat ko moo Ismaïla loolu moo leen fa indi shaa'ir yëpp ci la saa'irul hajj li ëpp ci diine ibra ci diine ibrahima la jamono boobee la ci la sànni jam ra ñëw ci la ñuy tuddee zam-zam ci la ñëw ay mawaqif yi ci la ñëw kaaba gi ci la ñëw bi ismaila juddoo nag ba màgg nag am na ay natt yu ko fa dal moom ak baayam ak yaayam bokk na ci natt bu ñëw zam-zam ndax ndax mara ko indi mu tax yàlla li ma li li ñuy jàng ki tabaski bu xissa bi pare te dana ñëw mooy tabaski yëpp ay nattu la ndax fa ñu toog mënuñu am ndox ci yàlla indi zam-zam ñu dem ba yàgg bëgg nañu néeg bu ñuy jaamoo yàlla mënuñu ko am suñu borom ci la indi li ñu tuddee alkaabatul musharraf fa ñu tabax ko ñu dem ba mu yàgg suñu borom bëggee na indil jaamu yàlla gu ñu tuddee al udhiya victime jaamu yàlla goo xam ne jaamu yàlla tuur deret la jaamu yàlla goo suñu borom jaarale ko ci la nañu tuur seen deretu njaboot. Ibrahima ne d'accord nañu tur daratu njaboot gi yaay ji ne d'accord nañu tur daratu xale bi xale bi ne d'accord nañu tur ñu tur daratam carrément rendi ko pour lan pour jaamu yàlla suñu borom ne bi mu defee examen ba xam ne carrément ñi ma doon examen yi gis naa ne réussir nañ mu daal dinañ jox benn manda bu ñu tuddee xaram tabaski daal di leen wàcceewal coonom ren di sa doom ci la tabaski daal di sosu mooy mashruu'iyyatu zakat ndax gént ci la jaaree moo tax gént du caaxaan ci lislam Ibrahima dafa gént pour dana rendi doomam ci gént googu mu wax ko njaboot ji ni xa gént ak du géntu caaxaan gént ak yonentu nu boobu la mu wax ko gi ñu d'accord mu tër doom ji pour rendi ko suñu borom daal di ne ko am na solution boo xam ne du rendi doom ci la tabaski juddu muy mashruiyat zakat muy mashruiyatul udhiya ci la tabaski juddu <coughs> Ibrahima nag dafa bëri lum nuroog yonent bi alayhi salaatu wasalaam parce que gars yi bi ñu tabaxaat kaaba gi parce que Ibrahima bi mu tabaxee kaaba gi kaaba gi dem na ba mu yàgg mu mujj am benn accident bu ko dal dafa am benn yoon de bu mas am Makka kaaba gi daal di ko tabaxaat biñ koy tabax yàlla dogal na fa Ibrahima taxawoon tànk ba ma nga marqué gars yi daal di ñëw génnee ko ba xool gis tànk bi marqué yonent bi taxaw fa teg fa tànkam tànk yi nekk benn te booba 35 ans moo tax ñoom ñaar dafa am bëri yu nuroo moo tax suñu borom ne ko na nga topp millati ibrahima xanifan na topp diin ibrahim waaye diina la joo xam ne nag yaxnif maanaam dafay jeng bàyyeekoo ci lépp loo xam ne lu bon la daal jubaat jëm ci lépp loo xam ne lu baax la mooy baatu xanaf xanaf yi léegi ibrahima daal di def li tuddee mashruiyatil udhiya comme nañ ko waxee yeneen tamit comme moom ibrahima la indi pour mottali ko ya ca manqué woon parce que diina ji matutoon ndax diina ji amutoon zakat diina ji amoon na sangu waaye amutoon jàpp moo tax moo tax bi bi sangu ñëwee leeralu saxaaba yi lan mooy sangu ñëw rek mu wax leen ko waaye nag bi njàpp ñëwee moom gaa yi xamuñ woon jàpp dafa jàpp seen kanam ñu gis ko tawaaf bi mu ñëwee yéen saa sana waxul leen lanay tawaaf ndax xam nañ ko bi ja bi jamra ñëwee ram ramyul jamaraat waxul leen ko ndax saxaaba yi xamoon nañ ko bi maanaam boobu daan nañ ci jaamu yàlla maa qabla loolu léegi nag tabaski daal di juddu juddu ci lan ci ne ku ñuy wax Ibrahim moom la yàlla doon nattu bi nga xam ne bi examen bi ah, réussir na ko suñu borom indil ko benn jaayise bu ñuy tuddee tabaski uduxiya boobu nag yonent bi ñëw roy ko ci moom dafa am benn benn at boo xam ne yonent bi nekk na ma màkk ay at musula tabaski mu dem Madina ca at yu mu njëkk ya suñu borom daal di farataal ci moom tabaski wala sunnaal ko ci moom mu teg ñaari xar rey benn bi ne bi maako ko rey ngir ne sama bopp ak sama njabootu daret bii maa ko waree ngir ne ummatul islam bi ëllëg képp ku amul tabaski bi yóbbaale na la su ko bu fekkee dégg nañ waxtaan yi mooy kon dafa mel ni tabaski sos nañ ko li tax ñu sos ko ñu ngi ko sos ci ci ron ay natt yoo xam ne mu ngi jógee ko ci benn famille boo xam ne famille bi yàlla moo dogal ci seen biir ay natt yu metti natt yooyu bi mu jógee suñu borom daal di leen fayee nag genn jaamu yàlla gu foor gu ñoo tuddee al udhiya tabaski léegi nag kon beneen yoon dañuy ñëwaat ci tabaski ana kan moo ko war a def ak ana man xar moo mën a tabaski